takk sag daay tribune yéen a kaay nii la xëyee tey ak opposition bi naan leen moytu leen yéen a ngi sàggane parrainage bi waaye daal su doon yéen di ngeen moytu ndax parrainage bi mën naa doon gi neen ndëgg sëlak goo xam ne dina tere ay candidat ñu bokk ci les élections présidentielles moom yéen a kaay bi xëy na taale koog Malick Gakou Bougane Gueye Dany ak Ousmane ku ne def sab costume ñoom ñett ñëpp di waajal présidentielle 2024 yéen a kaay bi ne leen bu leen sàggane parrainage bi de bu dee bokk bu ko sàggane waaye bu ko sàgganee daañu leen wayal yaayay jooy doo ndax du ngeen bokk ci les élections ndax parrainage bi gis ngeen ni bari ñoo xam ne élection présidentielle 2019 bii bokkuñu woon ndax nag bari ci dossier candidature yoo xam ne jotuñoo sax faf egg ndax dañ ne leen seen parrainage baaxul ay lu xóor ay lu mbóot maanaam daal lay wu ne tegal nañ leen ko ba yenn ci candidat ñu daal leen di poñe ne leen mënu leen dem ndax seeni parrainage baaxul loi bi ci parrainage bi ci ba tey de député yoo xam ne mën nañ faa toog xeexal opposition bi parrainage bi nan ca soobu mu gaaw daar daar lu ko mooy ma ne la làmbaay day ñaaw ba faw te dootul baax tribune ne ñi ngi naan dañuy bëgg faagaagal ay adversaire politique de yéene kaay des média bi ne waaye parrainage bi moo leen di jekkali fa yallaaxu leen fa yéene kaay ne Déthié Fall PRP soo moytuwul nag candidat lay doon ci élection présidentielle 2024 bii am na tournée goo xam ni Déthié Fall lañ ca de dem na Maroc dem na Espagne dem France dem Italie dem na Grèce foo xam ne nag ay ñoñam ñu ngi leen di mobiliser mobiliser ngir candidature war a bokk nag ci élection présidentielle bi ñibbisi na ci réew mi de waaye moom Déthié Fall mi ngi enchaîné ak i tournée nationale ba rek di waajal élection présidentielle bi ay jege ñaaleem xam leen ni du yàgg de moom Déthié Fall ci biir tournée mi yi mu nekkee ci biir réew mi dana annoncé nag candidature am ne ma fekk si na ñaar yoo xam ne jot naa am ci biir coalition Yewwi Askan Wi mu de bu Ousmane Sonko waaye tam taxawal suite boti moom Ismaïla Madior Fall ni ki démb daal dañoo bëggoon mu yeewi askan wi waaye Ismaïla dafa maye nopp tëx bi yéene kaay bi ne ma tayeeru constitution bi feneen la daal di tiire le soleil yéene kaay daal di may xamal nekk ci yoonu neex nag lu toll ci junni ci bracelet électronique ni ki démb daal daal dinañ koy jébbale lu toll ci junni yeneen ñu daal di koy commandé centre bu surveillance électronique daal di njëkk ci Afrique de l'Ouest Sénégal daal di koy dalloo ni ki démb koo xam ni jàpp nañ la dem ne su laa tëj kaso di gis ñu am foo xam ne nag dan la fay aaye ak foo xam ne mën nga faa dem source a daal di may xamal ne tey nag laa lay wax ñi nga xam ne mën nañoo jëfandikoo bracelet électronique bi ak ñamu warul yéeni kaay bi daal di ma bracelet électronique bi mënuñu koo jébbal koo xam ko mënuñu koo jébbal criminel mënuñu koo jébbal ñoo xam ne dañooy sàkku ay nit mënuñu koo jébbal ñoo xam ne mën nañoo am bracelet électronique bi bu nekkee dañoo fay la nga xam ne sàccoon nañu ko ñi nga xam xam ni it ab délit douanier la ñu def mënuñoo am bracelet électronique su nekkee ni nag fayuñu la nga xam ni fraude nañu ko yenn saay sax ñu ni leen taxe bi yëpp ngeen ko fayul du ngeen am bracelet bi sut ko di jéene ma boobu day Sénégal ma ngay soobu cib nag marathon budgétaire loo xam ne dana metti lool diggante nguur goog opposition bi de ndax nag saa si témbe dañoo mel ni timboo ci assemblée nationale ni alxamis gii lay tàmbali ñu war a natt gafa yi narta war a door marathon budgétaire bii su nekkee ni nag sut ko di ma opposition bi deful wax waxee day marathon budgétaire bi daal di tàmbali dañu koy naj ba la ñu exiger woon am ko bu nuppi l'enquête quotidien daal dina ma Sénégal daal am na ndam FMI xamle na ni sunu réew mi daal mi ngi dox FMI yi daal di xamle ni fii ak 2023 croissance bu réewum Sénégal day mën na ab téeméer boo jël juróom-ñett ya Edouard Gamayel daal di xamle ni recette budgétaire yi na raw na sax sunu njortu faf te it xel mën na koo nangu saa si xamal ne ndakaaru jël joob sangomar day not ya gën la daal di am le vrai journal laaj président Macky Sall la ko xale yi laaj naan ko président Macky Sall kiyeetii ñaari kanam daal nga yor am na boo xam ne bu bitim réew la ñépp bëgg la fa am na boo xam ne bu biir réew ma la daanaka soppe yi bari wuñu bés bi le jour daal dina ma bitim réew buñ ko soppee déléeg mu daal di wàcc ndax diplomate yi nga xam ne ña nga ci bitim réew di dund jaxan na ma yu Sénégal yi laa lay wax de ñaari weer a ngi nii jotuñu ay indemnité de logement te boo moytuwul ñoom consulier ak ambassadeurs yi daañu leen dàq xëy nag fa ñu daal di dëkkee ministère des affaires étrangères laaj nañ ko mun a ciel source aané ministère des affaires étrangères ci jamonoy Sidiki Kaba geneenu scandale ngi nii yéene kaay bi ne ma njiital Dakar dem dikk woon Omar Bun Xataab Silla njabootam gi yëpp daanaka passeport diplomatique la ñu yor ay doomam yi nga xam ne diggante 2013 2010 ba 2021 la ñu juddu ñoom ñëpp am passeport diplomatique ay passeport yoo xam ne 2018 lañ ko tàmbalee am ci jamonoy Sidiki Kaba laaj ba samp mooy nees ko amee tribune yéene kaay ne ma boobu day tuumaalante yi mi ngi nekk nag diggante pharmacie nationale d'approvisionnement ak couverture maladie universelle ndax nee ñu nag ñoo teree jalis gi daal di am ci réew mi fan yi yëpp yéen kaay dee média bi ne ma desal ak man ma xamal la ni ca Médina am nag immeuble boo xam ne dafa daal di nërmeelu ay gaañu gaañu daal di fay am moom Jibi jàll sous préfet bu Dakar Plateau daal di xam le ni nag faaw ay matukaay ñu daal di koy jël ci immeuble yu màgget yi faaw nag ñu daal di leen di nërmeel nu mu gën a gaawee jébbal nañ leen nag ay arrêté xamal leen ni dañoo war a génn bërëb yi nga xam ne dafa màggat lool moyen ngir dëkkal leen waaye nag sañ na ni leen génn leen ngir watu seenu bakkan Jacques Bauer daal di xam le ni ñey luwe kër yi amul ci droit na leer kër gu màgget kenn amul droit di ko luwe te fan yi sax daañu tàmbali ab planification boo xam ne ab plan lay doon ngir daal di nërmeel kër yu màggat yi moyen yi nag nekk ko fi waaye faw ñu planifier ko lu ko mooy ña dëkk ci kër yooyee daañu jeex l'observateur ne mbaadu askan wi nag dañ leen bëgg jeexal diggante Ndakaaru Louga ak Tambacounda ay fusillade yoo xam ne ay bakkan da ca rod di am ay scène de diggante takk takk der yeeg braqueur yi di am ña nga xam ne ñoo attaqué Auchan bu mbaaw daal dinañ leen di jàpp ay caméra de surveillance moo leen daal feeñal ma daaneel ak les échos yéen kaay l'indépendant yéen kaay ne ma déet bul daaneel faaw nga wax ak tata Mimi Touré ndax nee na président Macky ñetteel bi mandat def ko sa xel duñ ko nangu ci réew mi les échos ne ma mën naa daaneel ma ne ko ay cëkkay yéen kaay bi ne ma tey maa tës bi ab xale bu jigéen la boo xam ne lu a lànk wooyee Baytox daal di koy naan daal di faatu ci saasi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm